alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi dellu siwaat di leen nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal àq ci weer wi nga xam ne nii mooy weeru koor gi nga xam ne moom lañ nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ñu àggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin di ko ñaan it mu may ñu ñu fekke ko ati ati at te may ñu ñu ñu fekke ko fekke gu ànd ak tal ak man amiin mbokk yi ñu ngi dellu siwaat ci seen émission bi nga xam ne moom mooy nafahaat ramadaan yi muy brise du ramadan ñu koy wax peexum koor peexum koor ba tey tey jii ñu ngi ànd ak kii nga xam ne ni mooy al oustaz Babacar Kébé hmm. al oustaz Babacar Kébé Daarakoki TV mu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, alhamdu wa shukru mahan lillahi mahan nabii wala di hamdillahi lillahi bi zikril hakimi an qalib mahan nabii wala di hamdil muttalib ñoo ngi leen di fay nuyoo fii ci Daara Koki TV di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaan yàlla suñu borom liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak yéen te lépp di fas yéene jëriñante yàlla suñu borom defal ñu tawféex ba euh, barkeelal nu kàddu yi Euh, te xiir nu ci jëfee lépp lu ci juddoo oustaz Racine jërëjëf al oustaz Babacar Kébé tey lan mooy thème bi waa jërëjëfati tey de thème bi mooy buur ak jigéen ak takkaay buur ak jigéen ak takkaay buur ak jigéen ak takkaay waaw alors ah, day yéeme na moom <laughs> buuru jigéen takkaay waaw ñett yooyu aca bismillah ñu ñu dem ndax ndax ñu xam ndax ñu xam lan lan mooy buur maanaam lu ñu ci buur beeg jigéen jeeg takkaay xam naa ñett yëpp àdduna moom waaw loolu a wér na waaw yi la <laughs> <laughs> xam naa ne buur daal ak takkaay moom àdduna la gi ci diggante bi nag moom moom a xaw a na àjjanaa ah, ah. na àdduna na àjjanaa na àdduna na àjjanaa na ndax àdduna <laughs> yëngal na ko. Uh-huh. àjjana it boo demee ci isa waqaat yi. xam ne àjjana jigéene na. Uh-huh, uh-huh. <laughs> waaw ka am saa yu lu il mag. waaw ñu <laughs> allah kon bisimilah ñëwal ak ñun ci ci ci tam bi eh, ni nga koy traité ñu. waaw muy jigéen ak takkaay ak àdduna ak euh, euh, buur. Hmm. waaw loolu euh, xisa biñ ci indi. mooy dafa am benn buur li ñu waxoon rek ci buur day buure. Hmm. waaw xam nga waaw. te loolu yàlla li jig xam nga loolu yàlla li jig moom buure ne xam nga nekk buur ci àdduna ma naa nekk waaye boo ci bëggee buure buure da ngay bëgg xëccoog yàlla te buur yi àdduna dañuy buure léegi nag buur bi dafa jékki-jékki rek seen décision yu gaaw yooyu ñuy ñuy jël daal dem jël benn décision wàccee ko ci peuple bi. daal ne tere na jigéen yi société bépp bu kenn takkati takkaay ah? bu muy ay lam bu muy ay jaaro bu muy ay seen kenn takkati takkaay nañ ñëpp yokku yokku mooy def dox kese ah loolu nag indi problème coow ne combay ñii di kaas ñii di riposte ñii di def ay marche jigéen ñi lank daal ba tëdd ci naaj wi ne loolu duñ koy defee waaw ko daan takk ñaari ceen yaa nga leen di sax ay ceen far ñuy takk ba ne sugg waaw maanaam di ko wan ne ko moom moom daal hmm. léegi nag tool bari buur daal di woote réunion bu gaaw xam nga ni ñu koy tuddee ci tubaab réunion yu gaaw yooyu taari. réunion d'urgence waaw waaw réunion la daal di woote euh, ensemble ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo seq mu am ngoram. biñ ko wootee coowale cobbay am ñu ne daal décision bi nañ ci dellu gannaaw am ñu taxaw critiquer ne non buñ dellu gannaaw ndax buñ dellu gannaaw loolu dafay wane ak néew doole day wane ak faiblesse ci nguur nguur du tëddee noonu jël sa décision rek ay jigéen taxaw fii ne nangam nangam ñu ne dañ koy teppi non non. nag maanaam buur. waaw jël na décision. waaw ne ne kenn doo def takkati ay takkaay. waaw. après gars yi commencé di fipp ko nu mu tuddati. Mm-hmm, di fipp mu daal di mu daal di yóbbu affaire bi ci assemblée. mu yóbbu ko assemblée. Mm. waaw assemblée nag ñoom itam def ñaari pàcc. Mm. am ñuy am ñoo xam ne dañuy may doole buur am ñoo xam ne dañoo euh, dañoo nekk ay opposant ndax ñi may doole buur dañoo jàpp ne maanaam. dañoo jàpp ne buur buur delloo gannaaw. waaw buur bu delloo gannaaw nguuram day. day normeelu waaw day normeelu. wala da koy da koy néewal doole daal. waaw koy néewal doole wala daal. Mm-hmm, mm-hmm. ñee ñi nga xam ne nii dañoo contre bour dañoo xam ne lii tëralin wi nit fi ko jaare moo baaxul ah léegi nag tool bare tool bare noonu buur jeg-jeg ne dëkk bi nañ xool ki koo fi xam ne jàpp nañ ne xakim la maanaam am na sases ñu andil ma ko fii fii ma gisoog moom ci mbir mii ñu dem ci dëkk ba kañ jàpp ne mag moo fi gën a am sases ñu andi ko biñ ko andee buur gaaral ko mbir mi mu diglu ko ba mu àggal mu ne ko dëgg la ab société dafa am lu ñuy wax ak ñoom nekkul ne sooy wax ak société da ngay wax ak ñoom ci sam xel waaye da ngay wax ñoom fa seen xel toll nekk ñoom da ngay fekk ci seen xel nga ànd ak ñoom buur ne ko waa léegi yow kon loo bëgg foofu mooy man ma del gannaaw mu ne ko non non waxuma la nga del gannaaw mais. dafa damaa bëgg nga def ñaari décision yu neen yoo xam ne bokk ñu bii ñaari décision yi nag duñ bokk lu ñu porté duñ bokk ay contenu daal. Mm. ko da ngay bind ñaari décision benn bi da ngay wax ne. Mm-hmm. décision bi maa ngi wéy di tere takk ay takkaay waaye euh, selon jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo am ab taar dañoo rafet ay jongama lañ ay miis lañ ñooñ ñooñu moom bu ci kenn takk ndax doyuñ ko dara. ñooñu lañ ko tere. ñooñu tere naa leen ñu takk ay takkaay. léegi nag yeneen soxna yi nga xam ne yàlla natt na leen ñu am benn ñaawaay bi am ñoo xam dañoo xeesal dem nañ ñu bàyyi ko xeesal ba yàq seen kanam yàq seen yaram léegi ñooñu nga xam ne ñoom laaj nañ ñoom ñu am ñu dolandikoo ngir taar ñooñu per nga permettre leen ci beneen décision bi ne leen ñoom may naa leen ngeen takk ay seen ak ay takkaay. Hmm. léegi mu daal di bind ñaari décision yëpp daal di koy wàccee bi mu ko defee ci suba sa ñu génnee ko publier ko ci sur journaux yeeg ci rajo yeeg ci média yi ñu gis ne waa dëkk bi ñëpp tekki seen seen ndax jigéen bëggul ñu ne ko da ngaa ñaaw jigéen bi nekk fi ne nii ak lu ñaaw ñaaw jàpp na ne moo fi dàq même bu xamee ne ñaaw naat dana jéem a bañ bañ loo léegi nag ci noonu dégg <laughs> nga ci noonu euh, lam lam bëggoon te amu ko ci la ko amee fii la ko amee am na ko ci ñaar décisions yi nga xam ne moo jógee ci xakim bi <laughs> waaw <laughs> kenn takkatul takkaay daal ndax kenn nangu kenn nangu wax ñu ñal kenn nangu ñu da ngaa ñaaw <laughs> waaw ndax ku ndax léegi ku takk li ñu def yow da ngay mottaliku mm-hmm. te jigéen takkaay waaw léegi luy jàngat bi nag oh, moom de am na bari am na jàngat yu bari bari nag mm. ndax da ci jàngat ni moom euh, nit kenn du ko daxt kenn du ko kenn du ko teg pression pression ndax ko teg pression mm-hmm. bu yàggee day pipp mm-hmm. gis nga bu ñu tegee pression dañoo pipp waaw ah, te buur moom buur la waaw te buur buur la mm. waaye euh, nit da ko fekk ca la nga xam ne moom la bëgg mm. nga naxe ko ca jigéen ab taar la bëgg ak ku ko jey ca nga koy fekk naxe ko ca macha allah waaw dégg <laughs> yooyu ay bind la yoo xam ne aussi mag mën naa bàyyi ci dëkk dañ koy jàngate ndax xakim bi bu doon mooma bi coog mbàlloo mën naa yàgg ci dëkk ba te affaire bi du waaye xakim boobu nga xam ne nit ku jumu xel la euh, nekk na ci dëkk ba ba pare ñu bàyyi ko xel la buur di buur nekk buur lépp téewut mu nangoo wàcc ñëw laajte ko xalaat laaj ko xalaat andi na euh, kon buur nangu maanaam nangu buur googu mu nangoo wàcc pour laaj xalaatu nit loolu it maanaam ñii buur ñi ñiy yëngu ci àdduna ci wàllu nguur mën nañu ca jànge waaw ndax euh, li ñaan xel pusa la mhm. euh, bu réer mag mën na koo far gone mën na koo far gone mën na koo far waaw buur mën na ko far waaye baadoolo mën na ko far nga xam nga xam nga xam ne kon daal kenn kenn du doyloo sama xel rek waaw kenn du doyloo sama xel rek macha allah waaw men xel doyut jërëjëf jërëjëf jërëjëf al oustaz al oustaz thème bi am na solo lool mhm. macha allah ak njàngat mi yëpp mbokki téléspectateurs yi kon foofu foofu la ñu yemane incha allah di leen dig daje ci yeneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu